que mën nañ xam lan moo waral sa teewaay fii tey ci hôpital euh, maam Abdoul Aziz Sy bu Tivaouane. waaw am naqar rek suñu benn frère boo xam ne moom soxnaam dafay amoon doom dafay ñëwoon doon accoucher lendemain de la Korité mooy mardi bu le trois donc bi mu amee doom la matin nii ju guddi gi ñu wooñu nañu ñàkk na bakkanam donc ñu nangu ndogal yàlla mu nekk loo xam ne lu metti la aussi waaye bàyyi na fi benn doom boo xam ne 7 mois la am nekk sous couveuse waaw donc ci biir loolu aussi ñu gis ne euh, après 22 jours bi yaay ji décédé ak li xew tey démb ci guddi ñu gis ne xale bi aussi ci la bokk donc mu nekk lu doy waar daal. xale bi bokk ci onze personnes yi nga xamante ne ñàkk nañ euh, seen bakkan ci incendie bi nu mel quoi mu nekk loo xam ne doy na waar mais loolu exactement qu'est-ce qui se passe ci hôpital bi euh, problème bi ci hôpital bi la wala exactement euh, mën nañ jàpp coup du destin. bon doy na waar en tout cas kenn xamul lan la exactement parce que Euh, hôpital bi ñëw xale bi mu ngi fi woon depuis boobu ak léegi gis nañu ni mu demee mais kenn xamul exactement information yi nga xam ne moo tax ñu war a xam fi euh, incendie bi jóge li ko waral loolu yëpp c'est des questions yoo xam ne non édifiées amaguñ ci benn info mais euh, état bi war na gën a bàyyi xel li nga xam ne mooy santé publique bi waaw wat xel lu baax lu baax loolu le président de la République en l'occurrence le ministre de la santé xool politique sociale bi nga xam ne ñu koy def ci état bi ci ci ci hôpitaux yi ne Sénégal parce que jamono ji moom nit ñi dañu sax ragal dañu sax ragal parce que tey nga ñàkk soxna ñàkk aussi doom loolu dafa metti ñàkk soxna ñàkk doom dafa metti boo gëmul yàlla tuuti dafay doy waaw donc métti na daal métti na métti na métti na waaw. alors métti na comme ni nga ko expliqué noonu bëgg nañ xam ndax xale bi prématuré la woon moo tax ñu yóbbu ko fa wala li yaa ji moo tax exactement ñu yóbbu ko foofu. non non prématuré la woon 7 mois la amoon moo tax. sept mois la amoon ñu yóbbu ko ci couvre dañu dañu dañu césarienne yaay ji sax daanaka moo tax ñu bàyyi woon ko waroon na fee des normalement un mois ou un mois plus xam nga mu gën a mu gën a mu gën a mu gën a sûr daal gën a wóor moo taxoon donc mu nekk lu metti lu day waar loo xam ne daal euh, metti nañu suñu biir xol xol. sànq ci say wax yaa ngi wax ne xamoo exactement lan moo waral euh, euh, incident bi amoo leen ci ay information mais ci information yi jot am en tant que taskatu xabaar ñu ngi dégg ne court circuit la jógee ak yu mel ndax li mun ngeen ko confirmer wala boobu ba léegi amagoo leen lu leer. bon yàlla rek moo xam ñun xamaguñ ci dara parce que xëy na waa hôpital bi ñoom dinañ ñu mën a leeral ci lu mel noonu ñu ngi dégg yenn yu nekk nit ñi di ko wax mais li ñu gën leer daal xamaguñ exactement xam nañ ne daal am na incendie bu fi am ay xale ñàkk ci seen bakkan xamuñu nombre bi ñuy wax sax c'est pas exact ñenn ñi euh, ñi ngi naan kenn euh, desu ci ñi ngi naan 15 ñi naan 20 ñi naan 11 donc loolu yëpp tamit ñoom ñi nga xam ne ñooy yor suñu hôpital yi ñoom ñi nga xam ne ñooy autorités yi nga xam ne ñoo gën a habilité pour mën a wax ñoom ñoo ñu war a édifier parce que manque d'information totale la ñuy doxee actuellement donc mu nekk loo xam ne lu doy waar la aussi te ñu ngi koy naqarlu aussi bu baax a baax daal 2019 ci ab fàttali euh, ki nga xamante moom mooy le xalif général des Tidianes mu ngi doon wax ne soxla na euh, côté ministère de la santé ñu gën relever li nga xamante ne moom mooy le plateau technique de l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh bu Tivaouane ndax séntu woon ngeen jéebu nu mel am fi déedéet sentiwuñ ko woon parce que ministre bi répondroon na ci ci benn télévision bu ñu ko gisoon mu wax ne li fi waroon yëpp daanaka indi nañ ko fi ba indi fi plateau bi nekk na plateau bu relevé ministre bi ci ay kàddoom mais aussi xalif bi waxoon na ci lu mel noonu ci comme ni ko waxee léegi mais aussi euh, sentiwuñ woon lu mel nii sentiwuñ woon tamit euh, ñu ngi dégg ci ay xibaar ne accueil taxu ko demee noonu parce que gis nañ ne daanaka lii mooy énième incident yi nga xam ne mu ngi am ci hôpitaux yi a xamal exactement bon accueil bi moom lu doy waar la parce que ñi fi nekk daanaka euh, da naan est-ce que c'est des humains parfois waaw du ma ne ñëpp nag ñu ñu ko sañ wax peut-être parce que boo nee àddina ñëpp bon rek da tooñ boo nee ñëpp baax tamit da tooñ donc ci ñu ko sañ wax accueil bi lu ñu war xoolaat la plateau technique bi parce que d'abord avant d'être li nga xam ne mooy médecin wala xam da nekk un agent de santé da nga nekk un humain d'abord koo xam awra parce que nit boo konee nee boo ko nee massa sax ba fa bokk ci li nga xam ne da koy wéral waaw donc lool war nañ ko gën a bàyyi xel waaw parce que hôpitaux sénégalais yi moom daanaka magum magu magu magum feebar la waaw ci réew mi doy na waar ji amoo leen information yi ngeen soxla pour xam nan la mbir mi tëddee de A euh, ñuy dégg ci ay xabaar ne ki nga xamante ne moom mooy le ministre de la santé war na fi ñëw fii quelques heures lan ngeen di xaar ci moom exactement bon euh, actuellement daanaka ñun moom euh, ministre de la santé war na fi ñëw d'accord yooyu yëpp mais li ñu gën a intéressé mooy tey ñoom ñu gën a bàyyi seen bopp xel parce que bu ñu ñëwee gis ni ñu cadré fii ak sécurité bi ni mu amee jàpp naa ni bu ñuy bàyyi xel Sénégalais chaque jour au quotidien day gën a am solo que ñu bàyyi ba bañ a di def ay médecins après la mort waaw donc loolu dafay am solo bu baax a baax parce que population bi ñoom loolu lañ fi teg donc li am solo ci mooy euh, ñi jiite dañoo war a yërëm ñi ñu fii loolu mi ngi am rek réew mi am jàmm mais bu ñu gisee tamit yenn euh, yenn yenn mal manque manquement yu bëri yu ñuy gën a recensé te du yii rek gis nañ ko ci yeneen hôpital yoo xam ne mi ngi fay am donc day nekk loo xam ne euh, li ñu naan euh, lu yàgg rek lu yàgg rek day dem nekk nekk loo xam ne ay banalité yoo xam ne dañuy xam ni nit ñi dañuy dem ba gëm ni lii lu yàgg am la te lu metti la waaw donc sénégalais yi dañ leen fee teg pour ñu veiller à notre sécurité veiller ci li nga xam ne mooy li nga xam ne le minimum nga am santé dafa bokk ci des droits fondamentaux d'un pays waaw en donc dafa solo baax a baax ñu ko xel. tout à fait lay jaajëfal. merci